il faut ñu def benn groupe gaay gaay dañ ñu gazé eh taxaw leen taxaw leen gaay dañ ñu gazé doomu xaraam yi ñu ngi ans taxaw leen bougé wu ñu ndeyam grawul nañ taxaw nañu yóbbu ndey yëpp garde à vue nañu yóbbu garde à vue bëgg nañ nañu yóbbu yóbbu nañ ñu yóbbu garde gars yi foo leen di dem waaye nañu taxaw ndayam nañ ñu yóbbu garde à vue ñun ñëpp pare nañ nous ne sommes pas des terroristes les terroristes c'est eux qui menacent la France nous nous sommes là devant notre représentation il faut aller s'attaquer aux terroristes c'est pas à nous c'est pas contre nous il faut qu'il faut venir s'attaquer les terroristes c'est eux qu'il faut aller attaquer ce moyen-là que vous avez c'est contre les terroristes pas contre des citoyens pacifiques Vous tapez des manifestants pacifiques, c'est une honte, c'est une honte. Vous tapez des manifestants pacifiques, c'est une honte, c'est une honte. Vous tapez des manifestants pacifiques. Vous nous avez gazés, on n'a rien. Vous tapez des manifestants pacifiques. C'est ça la démocratie C'est ça respecter la loi en France Nous sommes violents Vous croyez qu'on va se laisser faire On va dégager votre pion de Macky Sall de nos pays. On va le dégager de notre pays, ce fils de pute de Macky que vous avez installé chez nous. On va le dégager de chez nous. On va le dégager Il va continuer à représenter la France ailleurs, pas chez nous. On va dégager ce fils de pute de Macky que vous imposez chez nous. On va voir. on va voir si on va se laisser faire on va voir gars bu ñu bouger bu ñu bouger nañ ñu encercler nañ ñu encercler bu ñu bouger na ñu rey ñun ñëpp nañ ñu rey gars bu leen bouger bu leen bouger dafa yomb trop na ñu rey nañ ñu rey nañ ñu rey on va dégager votre marionnette de Macky Sall que vous avez léché chez nous la il est là pour servir la France on va le dégager de chez nous si ce pays nous appartient ou vous appartient encore on va voir ça On va voir si le Sénégal appartient toujours à la France. de fils de pute. dañ ñu gazé sama gars <coughs> dañ ñu gazé dañoo toog ci suuf ñu ñëw gazé ñu ñun ñëpp kanamu consulat France lañ nekk ñu ngi ne la encerclé ñu ñu ngi nii ci digg dañoo encerclé.